bu ñuy sëfi ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen comme ni ngeen ko xamee nag Leewtoo 100 pour cent lamb te la ko commencé ci mbër mu mag roi des arènes ba ci suuf rek xeebu ñu si kenn tey nag yàlla dogaloon ñu ñëw fii ñu ñëwoon teewoon pël wala boog ñu ñëwoon lagros maa ngi yàgg mar a ah, fekk si fi benn mbër boo xam ne nii mu ngi dëkk fu ñuy wax Kër Bala ah parce que bu ñu ñëwee moom mbër mu ñuy wax. jànkalaar nekk kër bala faw ñu ñëw gis ko parce que espoir la boo xam ne ci benn saison bëri na ci ñeenti ñu lay fay Ousmane Sow dëkk bënn ba kër bala waaw waaw mën naa mën naa wax ni xam nga euh, taxawee fi taxawee naa fi ci dëkk benn rôle bu yaatu quoi parce que ba ma ñëw bënn ba xam nga yàgg na c'était en 2003 ba ma ñëwee xam nga y avait pas mal de maison ay cinq kër ñoo fi nekkoon waaw mais n'empêche que village bi yàgg na parce que chef du village bi am na 106 ans te fii la juddoo ci village bi waaw Eh, boobu aussi xam nga bëriwul woon nit mais après au fur et à mesure nit ñi jógee Dakar ñoo toxu fii te góor gi aussi xam wax def benn benn acte bu rafet parce que ñu nekkoon kancaaro yi xam nga amul ñoom fu ñu dëkk ñu ñëw fii xam nga ñoom ñoom mu daggal leen kër ñu dëkk boobu léegi ñu ngi nekk fii après moom mënee samay combat politique xam nga pour jàppale dëkk bi pour jàppale askan wi yaa ngi dégg eh, ba ma nekk conseil municipal jàppale Macky Sall mu gagné ma ñëw 2014 nekk conseil waaye li liñ koy ñaax rek keroog ba mu ñëwee sama kër wax naa ko nee naa ko foo mën a nekk rek na nga am respect am dignité am diine toppatoo say waajur bëgg say dëkkandoo loolu ku képp ku ko def ci kanam ci kanam rek nga jëm waaw na ngay avancer rek waaw te lu toll ni bënn ba amul mbër bu yàlla defee tey xam nga ku mel ni tey star bu mag bu toll ni tey ñëw dëkk biir bënn ba kooku yaakaar naa sagu bënn ba la kon nag ñun dañ koy ñaanal mu avancé li mu sumb ci làmb yàlla yeggal ko foofu te ñun ñu ngi ci ginnaawam parce que bu bu ngemboo tey naan bënn ba moo ngemb waaw. waaw maa lay dolli jaar bu baax baax baax. jànkalaar hmm, kan mooy jànkalaar. waaw jànkalaar benn xale la. Euh, juddoo Malika defee ko Malika ah kañ nga dugg ci làmb. waaw làmb maa ngi ci bu dee arène bi daaw laa si bëree combats. def naa quatre combats ren. ñaata ci benn saison nga maa ngi ko def ci benn saison. ci ban écrit. Kër Masar Mbooloo. Kër Masar Mbooloo laa nekk di nuyoo passage waa écrit bi yëpp di bëggee ñëpp waa Malika gi ma jógee maa ngi bëggee képp ku nekk Malika rek mbëru Malika yi ñoom boo ñaa amaam Malika ñun ñoo ñooy maa ngi bëggee ñëpp di char ñëpp. ndax ñoom ñoo na bokk écrit wala ngeen a bokk Malika bi wala. ama Malika bu ay ñoom euh, booy nekk foofu ñoom général Malika ak ñoom. waaw noo bokk man ak ama Malika ñoo bokk écrit mais ñu ñoo bokk koñ benn koñ bi la ama Malika ñoo taxaloo booy ñaa suñu kër yi tamit noonu sorewul waaw moo tax ñun ñooy fere quoi ñooy ànd waaw mais bokk écrit booy ñaa mi ngi nekk écrit école de yi moom moom fu ñu bon mais après laa ñëw Général Malika ci benn Saalum waaw foofu na fa bëre Jimboor yi. non fa Kër Masar Mbooloo fa laa bëree fa laa amee suma licence année bi ma am licence daaw ci laa bëri. kan moo la menacé. Ndoye moo menacé. bu bu Taï Singh. waaw Ndoye bu Taï Singh parce que moo menacé dugg Ndoye Mamadi moo Pape Diagne xaw ma sax exactement naa ko yor sama licence waaw waaw ñoom daal ñoo may woo Pape Diagne Seras wala Père Ndoye surtout Père Ndoye Père kese ñaata la li nga njëkk a fayal waaw première kese mbër yoo xam nga ko première kese mbër moom séeréer surtout mbër bu ndaw suñu premier combat ay 150 mille lay fay. mooy suñu premier combat. bi nga continuer daan kase maa ngi doon yokku. waaw waaw sant yàlla bi mu daan bi ma daanee moom kase tey ñu fekk la fii parce que ñun dañu ñëw la ko fekk la fii tey eh, lan moo la jëlee foofu indi la fi nga xam ne moom mooy dëkk bi ñu tudd sax kër kër Bala lu la fi indi da nga fi ñëw pour basé fi léegi jógee Malika wala. waaw non fii kër Bala sama famille presque ñu ngi fi waaw su may mag bu jigéen bindu maa ngi këram laa nekk. Jama Jaw xam nga ak Grand Dame ñooñu samay mag la ñoo bokk ndey ak baay ñu ngi fi comme li lay Ndakaaru rek moom indi fii waaw liggéey moom fi ni woon ma ñëw par la suite waa dëkk bi tamit bëggal ma seen bopp nu waxtaan ma nag ñoom te mbër tamit mbër buy dund rek li ngay yëngu avancement nga signal te mbooloo nga ci wër aussi ma ñëw fi tamit gars yi toog waxtaan ak man mooy grand yi nga gis ñu toog nii ñoom grand pap Elage xam nga Ibra Diaw grand baabuloo ñoom jabel grand yëpp ñu toog waxtaan seen man nañu suñ dëkk bi fii am na lu bëri nekk te comme yow sa fan ñu ngi fi ñenn te xale nga te yàgg nañoo dégg sa tur kon bu ñu fi gisee bëgg nañ tamit nga ñëw présenté ko dëkk bi. moo waral nga fii daal. waaw loolu moo waral par rapport ak sa mobilisation parce que euh, Malika dem Malika moo xaw a gën a jegeñ par rapport ak fi nga ñëw nii est-ce que côté mobilisation bi xalaatoo mu am lu euh, lu ci wàññeeku wala. waaw loolu yàpp naa bu yokkul du ko parce que démb rek am nañ fi benn réunion boo xam ni staff bi Malika ñu staff bi nekk Malika ñoom ñoo déplacé wu ñu fii ñu toog fi kon lépp rek ñoom ñu ngi ciy déggu ci kàddu ñu toog fu waxtaan Malika mu ma ma bàyyi Malika fa laa juddoo déedéet Malika laa juddoo suma lépp Malika laa ko defee. nga yi nga jot a bëree la. bu baax <laughs> sama premier sama premier combat kati laa daan bu parcelle mbooloo après kati ma dem ci esamaay ma daan SMA dem ci Pambaye 2 Pambaye 2 bi ma koy daan mi ngi bëre 4 combats 4 victoire man maa koy bi ma koy sobet ci 2 combats laa man euh, Mbengue Mboro moomu daal. Mbengue waaw <laughs> non du sobe sax. da ngay waa ngi ci 3 victoire ñëw quatrième ñu sobe la kay. waaw gis nga mais noonu la lamb la xam nga xale bu ndaw la xale bu ndaw la moom it xale la dafa ànd ay mbokkam man ak suma mbokk jour am du jour ñàkk jour ñàkk yi du bëgg am. parce que man tey li li tax ma gën a motivation ñëw jël la mooy bi ma ñëwee ba euh, Lagros ñu xamal ma ne carrément am na xale bu nekk fii tout près macha allah 4 combats 4 3 victoires benn def loolu dafa xaw euh, kii quoi dafa jafe léegi dafa xaw a risque quoi macha allah donte nag dafa góor dara parce que da ngay door pour man ah mais loolu bokk na ci li tax tey ñu ñëw dégg le micro pour waxtaan ak yow. dëgg la kon noo koy gisee. waaw loolu sant yàlla rek comme li nga wax rek xale laa defuma dara loolu xëy na suñu borom moo ko def parce xool balaa muy bëri arène pour bëre arène dañ naa ci lu ne dem nañ ba bëgg maa imposer jox ma ay ticket ma fay sama bopp ngir bëgg a bëre arène mais kon bu mu ñëwee am lii nii dama koy sant yàlla di profité tamit di nuyuwaat waa ëttu làmb ji di jógul sax ci waa groupe ëttu làmb ji man ci groupe boobu laa bokk muy groupe diaspora bi ñoom Modou Anta nekk ak ñooñu maa leen di bëgg a baax di leen charré ñoom it damay am sama combat sama ticket yëpp ñoom ñoo koy jënd ñoom ñoo ma jënd sama kon ñooñu ñoo ma yokk doole ñooñu ñoo ma yokk doole ak suma waa koñ Malika ñoom mère Koumba ak mère yëpp ñoom ñoo ma yokk doole te jàpp naa ma am Malika bi ma ñëwee fii tamit suma xel dal na fi waaw suma xel dal na fi parce que boo xool te di ngay gis nii yenn gars yi ñëwuñ mais ay responsable la surtout tey dimanche bi ku yaa ngi nekk say business boobu xam nga ñëw di nuyu tamit euh, monsieur le ko bëgg di ko siyaare wax dëkk bi daal dëkku baatin la daal ma ñëwee tamit am na lu ma ciy jot a xam lu ndaw donte xale laa te yàggul xam am nga combat actuellement wala démarche nañ sa waaw actuellement ñi ngi démarre sama combat nag. kan ñi ngi démarre non xaw ma sax man kay père moom moo wax rek. père Ndiour parce que nee na ma trois promoteurs ñi ngi décroché sama combat ma ko man daal yow laay déglu wax gu ma exact nag adversaire bi mais nee naa ko yow laay déglu saa boo paree man garaawul pare na. la wax ñoo ko bëgg. waaw yéen waaw yéen daal di ñëng ak waaw ñooñu bëgg sama combat Pape Sarr bëgg na ko yéen daal di ñëng yéen daal di moom déggante nañ sax maa moom tamit même grand Pape aussi déggante nañ keroog. ci loolu waaw. yow daal ci manager bi rek nga leen yebal. waaw ci ñoom laa leen yebal Père Ndoye laa ko yebal ak euh, Pape Diasérès. di profité loolu nuyu di daal suñu frère ak Pape Sarr di ñaanal jàmm ñoom tamit ak promoteur yëpp tey yow bi ngay dugg ci làmb lan moo la ci dugaloon da nga gisoon koo doon roy ba tax dugg ci làmb danga am mbokk buy bëre wala da nga xëy xëy rek ñëw dugg ci noonu. waaw làmb euh, ambition moom si dugal mbokk muy bëri doon na ma ko fenn man koy faral di su ma la waxee fi ma bokk rek. da nga xam ne kii làmb du cëram waaw ma bokk ci ci maanaam sama papa maanaam kilifa la daal kilifa la ci biir kilifa yi foofu su ma li ma la ko mën a waxee daal du lu ñu mën a toog di ko wax si télé mais moom sax commencement bi nangul woon nangul woon parce que yombul sa papa doon imaam ci biir gox nga bëgg a doon mbër ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom moom fa jokk waaw kon yombul mais bëgg-bëgg la rek sama gars yi nekk si di bëree sama gars yi jékki-jékki bàyyi bëri affaire de groupe groupe ma fipp na duñu bëri sa gars yi ñoom waaw comme ñu maa ngi koy bégg bu baax ñoom site amasadio à ah, gendar mi ne Casamance ñooñu laa doon ñoom tuuti Ndiaye ñuy ñu dem ba ñu bàyyi jour bi ñu ma njëkk a takkal ngemb ñoom ñoo ma takkal ngemb dama jóge daara ja boobu doon jàng ma jóge daara ja ñëw mbir ki ñoom ma takkal ngemb ni ma demal bëri ci combat bi ma njëkk a la woon de dix personnes ma jël ko ñu jox ma benn pot meew foo ko jëlee woon loolu. waaw maa ko jëlee woon sama koñ foofu laa ko bëree Malika waaw. kon da jàng alxuraan. <laughs> waaw jàng naa alxuraan moom waaw. loo ci mën a génne tuuti lu gars yi xam ne yow mii borom àll woon. man moom <laughs> vraiment borom jàng nañ quoi sant nañu yàlla bu baax. waaw di profité tamit parce que jaar nañ daara yaa dem nañ dem naa Mbirkilam dem naa Mbour dem naa Kokki foofu daara yëpp. wàcc nga alxuraan. waaw wàcc naa alxuraan wàcc naa alxuraan te jàng naa téere xam-xam yi naka nag waaw. am na loo làmb. waaw ndul rek <laughs> na ndaw lu ma làmboo di ko sante góor gi tamit bu baax waaw di ko sante am nga métier waaw bu baax man mooy sa métier mooy sama métier koy ñëwee non actuellement moom ñëw ma actuellement nii ñëw ma parce que sama business bi ma nekkoon avant euh, après terre bi mooy dama doon jël fi ay bagage di ko yóbbu Casamance ma dem Casamance dama daan dem Mourtani di fa yóbbu ay bagage di ko jaay waaw waaw waaw ci yooyu laa nekk waaw mais actuellement nii ak yoon bi nii doxul man duma toog maa ngi ci géej gi fii di liggéey di napp waaw daa ngi dem géej waaw maa ngi dem géej dina ko man gaa yi dem géej waaw di bëgg waa gaal gi tamit ñoom Arona ñoom Bamba gaa yëpp ñoom maalaam bu yor ligsi bi xam nga maa ngi bind ñëpp ku yéex a ñëw du la bind moom noonu la mel waaw <laughs> làmb ji da ci am idole mbër yi man aw may dool de non man royu ma kenn lu tax moo naam mbër nag bi ma gën a doon booy Balla Gaye moo doon soo mbër mais nii nii nii maay sama mbëru bopp aw may dool de waaw non mën nga doon sa mbërum bopp te am mbër moo xam ne du tere da koy béggee parce que Mbappé ku ne xam na ne joueur bu mag la actuellement mais boo waxee dana la Cristiano Ronaldo moo moo ko moo ko motivé nga alan da lay wax loolu kon pourquoi pas même boo nekkee mbër tamit du ñàkk nga am koo xam ne di nga ko roy wala. wala mobile mooy bu grand maa ngi koy bégg bu baax sama grand boobu mobile mooy sama ak Boy Niang ak Malika waaw te ñu ànd Boy Niang Euh, Balla Gaye da ko tudd léegi da nga doon moo doon sa mbër loolu nga ma waxoon loolu nga ma wax sànq loo xooloon ci moom ba di ko supporter. waaw Balla li ma xooloon ci moom bari na. waaw mën bëree bi surtout ba pare sañ-sañ bi muy doxee ci biir géew waaw loolu moom ma gënoon neex ci moom surtout sañ bi muy doxee bu arbitre bi sifflee du la xaar bu arbitre bi yéexee sax day bëgg arbitre bi waaw te làmb tamit loolu dafa baaxoo ci làmb parce que amateur bu dagg xaalisam ñëw bëgg na nga wane fulla ak fayda mais pas nekk fa di léewtoo jëmale lu kenn xamul waaw loolu moom ma gënoon neex ci moom. moom moo gën a neex ci Balla Gaye. am na ku toog fii léegi jóg fii muy conseil maire bi moom dégg nga li mu wax si Balla moomu parce que laaj naa ko si diggante ma Gris mu ne Balla moo mën Gris moo dàq bëree te bokkuñu nangam sangam lan lan wax da nga ciy ànd yow en tant que mbër. waaw non mën a ànd de parce que si a dama si doon élément de terrain mais Balla Gaye nag laa ñaanal ndam mais ba xam moo gën dàq bëri Bordeaux wala moo ko gënee kii non yooyu am nañu si ñoo xam ne ñii yooyu seen wàll wax ku dàq bëri ñun kay la ñuy mën mooy baat combat soufflé rek ñu def suñu reportage ñun waaye kii diw a dàq bëri diw ñun loolu kay yow muy mbër yaa ko mën a xam. non man moom vraiment maa ngi ñaanal Balla Gaye lamb la ay nawla la ñoom ñaar di bëre maa ngi koy ñaanal ndam ku nekk am na droit mais ba xam moo dàq bëre giri wala giri moo ko dàq bëre no maa ngi ñaanal Balla ndam daal. li bëgg am ci ku ci dàq bëre. man maa si dàq bëre waaw. yow ci génnee ku top ci yow. man maa si dàq bëre. ku topp ci yow deux première boo gis am na deux heures. Balla Gaye waaw à part man man nag mooy deuxième quoi mooy deuxième man nanguma kenn ndax ma bëre. jeex na dëgg mooy deuxième. mooy troisième. boo ñaaw bu Malika su ma ñëwee am na benn combat boo xam ne faw ma laaj la ci muy diggante Tapha Tine ak Boy Niang. waaw Tapha Tine Boy Niang c'est le maire gañ de ko gisee yow en tant que xale. waaw lamb la lamb la boo xam ne day dekki lamb di nuyu promoteur bi ko tëgg. parce que am na solo lamb dem nañ ba ñu dee na sponsor daw na lépp daw na xam nga mais comme ñëw na ba indiwaat combat boobu noonu ak yeneen di combat yu taxaw kooku ferta la quoi te luy suqali mais maa ngi ñaanal daal ñu bëri ko ci jàmm ak salaam en tout cas ku daan di nga jàpp ci cent millions yi cent millions yi waaw ku ci daan combat boo amaat combat bu bu lay arrangé mais ku ci daanu tamit a métti ci yow waaw. combat ba loo xalaat mu jeexal ku bëri wala xeex. waaw combat boobu mën na gars yi mos naa ko def benn analise man leen boo ñaa boo ñaa kii nii Tapha Tine gisuma ci jëlu jëlu quoi wala benn gàmm mën naa ci gis ay décision arbitre wala ay carte bi décision arbitre wala carte waaw man gis naa ci loolu de. dóor nit ki bañ ne gaañu na mënatul a bëri. waaw surtout. wala ñu mooy tu nit ki wala nangam sangam mu def carte. mu def parce que Tapha Tine kee lourd la Boy Niang lourd la mais sabar Tapha Tine super lourd la waaw te bëri bi Boy Niang di bëre ak bëri bi Tapha Tine di bëre bokkul Boy Niang day dugg di génn. bu duggee génnoon pour tafaatin poitrine bi dafa diis bu duggee génn bu sóoraale mën a rëbb booy ñaa bu ko tafaatin koree bu ko dóoree mën a yàq làmbam moo tax man la ñaar yooyu laa fa gis. yaa ngi wax de. <laughs> waaw ñun ay xale lañ rek. di profité di bëggee ñu ñëw nii Kara Youssou maa leen di bëgg baax a baax ak sama soose bi waa maa ngi bëgg ñëpp non làmb la rek ñun ëttu làmb ji lañ nekk ñoom la ñuy siiwur ci làmb balaa ngay ñëw nii déggante na ak ñoom te ñoo xam ne muy grand tour ni maa ngi koy bëggee yëg na ni yaa ngi fiy ñëw te euh, fii ni bi neexul mi ngi ma woo téléphone la ma woo expliqué ma solo ci mbër kon may nuyu waa ëttu làmb yëpp maa ngi leen di bëgg di nuyu waa axlu làmb di nuyu bépp groupe whatsapp réew mi rek du ñu fàtte benn bés bu ñu ñëwee dinañ juum mais yaa ko tudd ëttu làmb ji fa mu nuyu leen fan si club Babacar tamit ëttu maanaam groupe la maa ngi leen di bëgg ak fan si club Leewtoo TV yëpp ci làmb ji lañ ne di bëgg képp ku fa ne di yëngutu rek mais boo amoon tey looy wax tamit ci dëkk beeg corona beeg yooyu loo ci wax ñu mujj foofu. waaw balaa ma mujj foofu dama fàtte papa yi dañuy décédé maa ngi jégalu ci loolu di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaaral jënd yàlla àggalee parce que man bi ma ko déggee bett na làmb yëpp may man mi bett na ma waaw mais àdduna ma noon la suñu borom dee la njëkk bind soo ko bind dund kon loolu boo amee dañ koy sant yàlla di ñaanal njaboot gi suñu borom may leen xolu muñ bépp mbër bu ne ak ku sax ku ci décédé rek yàlla suñu borom xaaral di bëggee Jules Baldé Junior jibi bu ama yàlla ko yàlla foog boppam xam nga mbër yëpp daal maa leen di bëggee corona bi nag ni mel nii lu fi yàlla def la dañ koy nangu jaam lu ko dal mu jóge suñu borom da nga koy sant yàlla kon dañ koy sant yàlla rek yàlla moo fi indi te bu nammee mu jeex dina jeex de incha allah waaw képp koo xam yàlla xarul gémmiñ ngir suuf bu ko xaree rek am nu lu tax corona ñu ko dalee dégg ba mu fi duggee ba léegi déggoo kuy toog fii ñu ni kii xiif moo ko rey wala ñu dégg kii mar moo ko rey lu métti métti suñu borom mi ngi leen wërsëgalee loo dundee kon ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñu borom dindi ko fa parce que soxla nañ ko ñi si génn àdduna yàlla suñu borom xaaral na àjjana ñi si tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñun mën a delluwaat suñu activité parce que ñun suñu activité mooy làmb suñu activité mooy làmb parce que ñun ñii comme par exemple man xëy am na sens bu mu am keneen amu ko sens bi ma am mooy bu dul làmb maa ngi fortaatu ci dara am na koo xam ne lamb rek la siiwul mu taxaw xaw na métti ci moom yal na ko yàlla taxaw dimbali ko. léegi dañuy jeexal danga ma jàngatal tafaatin booy ñaa wax nga ci lu leer nañ defe naa li nga wax ñoom ñi yore mbër yi ak mbër yi dinañ ko bàyyi xel mais euh, Ama Baldé bu Fallaye Modou des arènes ak Sëll bu ndaw. waa loolu tamit làmb la de waaw Ama Baldé Modou Lo la mais làmb bu neexe bu naqaree analyser la parce que lu tax mu naqaree analyser mooy Modou Lo souvent pour xale bëri moom parce que suñ morom morom ay morom lañ ñooñu ay morom lañ mais Modou boo booy xool catégorie bi mu duggoon muy si ñoom Bombardier si ñoom Balla Gaye catégorie boobu mu duggoon ñoo ko ëpp benn doole ñoo ko bon doole. waaw léegi Ama Baldé nag ëppul doole Modou Lo Ama doole Modou Lo léegi Ama Baldé nag bu ñëwee bëgg a bëree comme xam Ama ku ne gis na ni muy bëree day ñëw arbitre sifflé mu ne day jeex tey tay Modou Lo loolu daanu ko de. déedéet boo bëggee ñëw ni combat bi day jeex tay tay tay loolu daanu ko Modou tamit day jàpp taxaw nga def action souvent mu suruxal la te Ama Baldé action bu muy def da ci ànd ak doole ju bari te pongal xaju ci yéen am na action yoo xam ne bu ko defee mu ànd ak doole Modou Lo mun na ci surux mais Ama tamit bu bëggee ñëw ni combat bi day jeex tay tay tay tay tay mun na bu ko bett. combat bu yéexee. boo xam ci arrangement kan la Modou Lo. pour parce que boo ni Modou Lo di préparer combat ak ni Ama di préparer combat sa bopp. maanaam pour yow Modou gën leen ak préparation. waaw parce que boo fa déggee moo wax loolu mooy Ama Baldé Modou Lo ni muy préparer mooy. saa bu ñëwee combat da gis waa ji dafa jeex tàkk mais doole ji mu ngi ci biir waaw bu ñëwee nag day jël volume bu bari poids bu bari nag mënu mënu maîtriser benn temps bu yàgg bi moo tax man la bu yéexee parce que booy xool contre Ama Baldé guy bu njëkk ba loolu moo xaw a dal Ama dafa ñëw poids bi dafa diis guy gi dafa xaw a lese moo tax bu demee ba combat bu jeex bu mu ko defee takk pour biite ko noonu guy gi da ko da koo remplacé mu wàcc bu gaawee. waaw bu gaawee mën naa am arrangement kii la quoi Ama Baldé waaw bu gaawee. seenu xeex. ñoom ñaar moo loo moo gën a ñor xeex la waaw. kuy <laughs> kuy bëre roi des arènes moom roi des arènes la ñuy jox favori waa loolu moo tax rek kuy bëre roi moom roi la parce que boo xool ci kase sax roi moo ëpp xaalis. boobu lañ koy fay kon moom la gars yi jox favori comme yéen di ngeen ko jox favori rek waaw. ñun kay joxuñu kenn favori ñun suñu xalaat lañ. ndax léegi combat ba daal jàpp nga ne gaawaay bi Ama la mais bu yéexee Modou lay gën a arrangé. waaw man loolu laa gis quoi. Ama loo koy moytuloo ci Modou. Ama Baldé lu ma koy moytuloo ci Modou na moytu Modou kor ko waaw waaw bu ko koree mën na yàq lambam quoi waaw loolu laay moytuloo ci Ama Baldé. Modou loo koy moytuloo ci Ama. loolu lu may moytuloo ci Ama na mel ne parce que Modou gars yëpp ne nañ Modou tànk la mais Ama tamit mën na jël tànk la na moytu tànk bi waaw na moytu Ama jël tànk bi parce que boo xool Ama ni muy jëlee tànk souvent sax ak ni mbëri jëlee tànk da xaw a parce que moom bu jëlee tànk da jël boobu doolu ko ci naq te boobaa pour kontaan naa <laughs> ba tey rek ñu ngi fi nga xam ne mooy kër Balla ah euh, ñu jàkkaarloog benn waay boo xam ne ni yaakaar naa moom itam bokk na si ñuy jàppale mbër mi fi nga xam ne moom mooy ci dëkk bi maa ngi lay nuyu délégué de quartier la wala. sang bi ñoo ngi lay fay bu baax a baax sant nañ bu baax a Pape Gueye délégué de quartier Bono ba Kër Bala. Mhm. Euh, di ko rafetlu di ko rafetlu parce que xale la ba mu yegsee def na lu ko war mooy ñëw na xam kilifa yi dem ci chef village ñëw ci délégué de quartier yi ñëw na aussi tam ci notable dëkk bi surtout les conseils municipaux ñëw na ci ñëpp ñu koy rafetlu di ko ñaanal yàlla yoon bi mu jël yàlla suñu borom jàppale ko ci di ko conseil aussi na góorgóorlu. lépp lu muy def parce que nit la nga yaakaar sa teraanga ci nga war a mën a tedd waroo ca ñàkk fula waroo ca ñàkk fayda euh, ñëw na fi dem wax naa ko ga xamal fi nga teg sa tànk xam fi ngay teg sa loxo boo bëggee a àgg fi Tyson ak Balla Gaye yem loolu conseil naa ko dem waaw nee na Balla Gaye mbërëm waa na roy ci Balla Gaye kon ba fex bala nga ne ko loo koy wax si bala moom xale bi waa ma ne ko na am jom rek jéem a mel ni bala nit boo ko bëggee danga nga koy roy jéem a mel ni nit ko tey jii Balla Gaye ni mu def ba am fi mu toll fi mu moom na ko jéem roy na Balla war a doon bu mu ne damaa bëgg Balla mais na doon Balla doon Balla. yow bi ma yow su ma la xoolee ci làmb da nga jaar ci làmb wala da nga mës def dara ci làmb. waaw ah non cof naa ci <laughs> maa ngi woon Bul Faale. Bul Faale Mouhamed Ndao Tyson depuis kañ. Mouhamed Ndao Tyson def naa fa 3 ans parce que année année bon 97 99 maa ngi am waaw que 2000 laa quitté foofu ñëw Kër Massar. Tyson sama waay la ëmma sama waay la. non boobu jamono yàgg na fi mu nekk nii fàttali bari parce que gëj naa xam di ci làmb yàgg na trop même Tyson gëj nañu gis seen depuis dëju Alioune Badara Cissé papa Alioune Badara Cissé ABC lañ gëj a gis seen dëj. ëmma dañu daje souvent ci kaw lag bi ci lag bi waaw mais làmb moom cof naa ci mais nag aw ma ci xam-xam. Tyson bi ngeen di ànd maanaam da fa nekkoon. comme mbër wala da ko daan wala loo fa doon noo fa doon taxawee ci biir bëre bu daan ñëw stade. accompagner laa woon ci moom parce que man visé wu moon pour bëre visé wu pour bëre accompagner laa fa nekkoon waaw ci ñu ko doon gunge di ko bégee aussi tamit comme kii li mu wax dama bëggoon Tyson ba tey jii nii bu doon bëre moom laay supporté jii nii nii mille combats mille défaites man je suis avec Mouhamed Ndao Tyson. am na ñu ma dee wala boog ñu may wala man sax danga ma koy xaw a niru Tyson bi mu daan bëre ki daan yor foto Baye Niass bi. parce que dafa mel ni sax kanam dafa ma koy xaw donte doon naa dégg nag ñu ne kooku génn àddina xaw ma dëgg la wala déet yow la wala du yow. man de génn gu ma ànd te bi bi drapeau américain tam maa doon sol yére bi takk fulaar bi photo Baye Niass bi maa ko daan yor man. ah man de maa ngi sama kër fii la gos yor samay njaboot aussi tam géré moo tax ma cof naa ci làmb tuuti waa la adduna la parce que nee naa ne yàlla sax bu wàccoon Sénégal ñu ne du yàlla. mais tàgge ku kuñ ne man loolu dama dégg li ma la wax nii dégg naa ko dañu naan ki doon photo Baye Niass bi génn àddina yooyu te yow nee nga ma yaa daan yor. tàgge nañ fi Baye Ili bu yàggul est-ce que dee na ah? waaw de mooy loolu la tàggee ñooñu rek moo ta moo tàggee li man moom mosuma ko tàgg nañ mosuma ko dégg parce que moom Baye bul faale yàgg na ba koy bàyyi taaseen ngi bëre man bàyyi naa bul faale boobu taaseen ngi bëre waaw ba ma ba boobu taaseen ngi bëre sama ginnaaw nag xam parce nekkoon naa fi aventurier dem naa fi Mali def fa def fa cinq ans six ans ba ma ñibbee ba ma ñëw laa ñëw sama kër fi toog man ci bâtiment laa yëg man entrepreneur bâtiment la entrepreneur bâtiment la BTP laay def man maa créé Guèye frère BTP waaw man maay la doon man Pape Guèye laa tudd Mamadou Guèye laa tudd mais pab Guèye lañ may wax waaw. ginnaaw raay boo fa demee Jési la ñuy wax Jési ñi ma xam dëgg Jési la ñuy wax waaw. jërëjëf kontaan naa ci <laughs> loolu. <laughs>